ñu fii Mali Tawfekh rek ngeen di dégg ci lépp lu jëm ci seen wàllu wér gu yaram ndax suñu produit Tawfekh yi nga xamante ni ay produit bio naturel la yoo xam ne ci gàncax yi nekk suñu réew la ñu ko defaree waa Tawfekh ci lan Tawfekh ci wàllu néegu sëy Tawfekh ci wàllu mbëxum siti ba ci Tawfekh ci wàllu hémorroïde

yi tawféexu hémorroïde bi képp ko am ballonnement wala nga am hémorroïde externe wala interne jàpp leen ni jeex na jàngoro hémorroïde sonal ñu bëri tawféexu hémorroïde moom daa dëkk jële fi lépp am nañu produit boo xamante ni moo leen soxal bu seen yaram di diis du ngeen man dara yaram bi diis gann ngeen di tayel ba jàpp ni sax dañu leen liggéey fekk na yaram bu diis tong la jàpp leen ni suñu produit yii bu ngeen ko jëlee di nga oyof tong gaaw leen gaaw jokkoo ak ñun ci 77 593 19 79 11 wala 77 245 36 39 kon nag Seydina Omar Kayre ngoog borom produit yu baax yi Seydina Omar Kayre mi ñu andil tawfeex ma ni tawfeexu ndugg sëy bii gaaw leen wuti ko te xam ne sonal na lu bari waaye tawfeex rek ngeen ciy dégg ak Seydina Omar Kayre borom tawfeex. صل ربي صلوا على النبي أحمد صل ربي صلوا على النبي أحمد صل ربي صلوا على النبي أحمد nañu màggal Ababakar mi ñu moom النبي صلوا على النبي أحمد صل ربي صلوا على النبي أحمد نحن كان أبا بكر كن صل ربي صلوا على النبي أحمد صل ربي صلوا على صل ربي صلوا على النبي احمد نمو من بين فارو تيدو نفاتي صل ربي